sëriñ Mouhamadul Fadal mu ne asalaamualeykum nee na benn la nag sëriñ bi nee na daa bëggoon ñun ñëpp ñu maase dégloo sëriñ Fallilou nee na daa bëgg ñun ñëpp ñu maase dégloo sëriñ Fallilou mu ne xiiwal dafay ñëw koo xam ne danoo yéene ñëpp am ci nee na te tax ñu gën cee am nag mooy ab yar bu ànd ak ay teggin ak déglu sëriñ bi di wax ndax sëriñ bi kat ñëwu fi ngir diñu sonal si nee na xéwalug tey ak ëllëg la ñu sëriñ bi nee na mu bëggoon ñun ñëpp ñu jariñoo ko kon nag ñun ñëpp nañ déglu sëriñ bi nee na moom kàddoom yi mu ci bëggoon a wax nee na bàyyi na ko Cheikh Moustapha mu jottalil ko ko sëriñ bi su noppee nag sëriñ bi doog a a yëkkati ay kàddoom sant nee na loolu rek mooy kàddu yi. sëriñ Moustapha mu ne. asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu. mu ne Cheikh Mouhamadul Basir. ci turu jëriñ ji nee na ci turu jëwriñam ji toog di Serigne Fallilou ak turu kilifaam yi nga xam ne ñoo fob seen kàddu jox ko ba waral nga ñëw fekk ko fi te fekkoo leen fi nee na dafa yóbbaale kilifaam yëpp nee ay waxam nag mi ngi ciy déglu nee na day joo xam ngeen ci ñun ba tàyyi ñu xamal leen ñu dem mooy taawub kër ga taawub nag lu waay ci kër baayam moom la ko defal kon lu waay def ci ñun ci kër gii ñu nekk muy kër Cheikh Ibrahima Fall Serigne Fallilou ma ngay jàpp ne moom nga ko defal te nee na loolu nag moo am nee na way juram yi seenug doyloo rek moo waral lum leen nekkal lum doon rafet ci njort ne lanu ca bëgg dana am loolu bokk na ci benn ci jotaayu tey jii rakam yu baax yi toog nga xam ne Cheikh Mamadou Basir Serigne Moustapha nee na mi ngi lay mu yi kenn amu ko moom wala boog sax gisuñu ko nee na leelu firnde jaa ngi nii melokaan wii ñuy mel ci seen kilifa mooy wane rek ne mu mel ca waajur ya nanuy mel ca waajur ya noonu la ñuy fi moom fab lépp seen lépp jox ko moom Serigne Falilou waaye nag Serigne Falilou yoral ko ay kilifaam nee na Serigne di la xamal ne ci ci turu jëwriñu Serigne Ibra Fall ja muy Serigne Cheikh Jëmb Fall ak ci turu way juram yu tedd yëpp nga xam ne liggéey bii ñu nekk day mel ne lépp teew na fi ñëpp it teew nañ fi woote bu ne woote nañ ko muy ndigal lu bàyyi ci kër sëñ Touba tabbi ci biir kër Seex Ibra waaye nag nu wuy see ko nii nag loolu daal baye wax ne woote bi yàgg na lool waaye baye boo ñu ne guleet waaye day mel ne ñi nga xam ne seen yaakaar yëpp sëñ Touba la ne kenn ku nekk ci nun kenn ku ci ñoom fab nga sam xel bàyyi ko ci liggéeyu Seex Rafaal bii Serigne Touba di ko ko liggéeyloo ndax bis bu ne fenn fu ne ndaw dana fa ko ci kilifa yoon wi bëgg a wut loo xam ne ndigalul Serigne Touba lii jaar kër Seex Rafaal da yow. loolu kat ndimbalul yàlla la loo xam ne liggéey bii am na ko ñëw gii Cheikh Mahamadul Basir ñëw xanaa dafa andi baat waaye yaakaar naa ne am xelam dal na ci ci ne ki joxe woon baatum liggéey bi rafet na njort ci ne num ko bëggee rek dana ko ne amee moom Cheikh Mahamadul Basir mi toog joxewul ndigal li diglewut ndigal li dafa andi woon ndigal li waaye yaakaar naa ne bi mu ñëwee nag ki mu ko tegoon ci loxoom di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ja mu xooloon barab bii ni mu meloon ca ak njëlbeen bi mu dikkaatee moom Cheikh Mamadou Bachir moo waxal boppam mbett moo xam ne liggéey bi bett na ko ko. ci wàll yëpp nag. waaye nag. bett na ko waaye du ko bett. ndax xam na ne. baat bu bàyyi koo ci kër sëñ tabbi kër Cheikh Ibra Fall. jàppandoo ko. xam nañ ne. la ca sëriñ Touba bëgg. danañ ko def na mu ko bëggee. ba am ko nam ko bëgg kon sun sedd na guyu sëriñ Fallilou nee na baatum ndigal bi nga andi woon teg ko ci loxol jëwriñu Seex Ibra mu bokk ko am njabootu maam Seex Ibra Faal gépp nga xam ne kenn ku ne ba ndigal li duggee ci sam nopp ba tàbbi ci yow day mel ne lu musta am ci yow bànneexoo ga ndigal nag moo waral bi ndigal li agsee ci ñëpp bu dee cërub kenn rek mbooloo ko bokk moo tax mu woyof tooy kon noo ngi ñaan sunu borom jëwriñu sëriñ Tuubaa ji joxe woon liggéey bii di Cheikh Mouhamadul Mountakha ak jëwriñu Cheikh Rafal ji ko joxoon di sëriñ Cheikh Jëmb Fall ak njaboot gi topp seen ginnaaw di jëwriñu yoon wi sunu borom doolee guddal seeni fan dolli leen ak wér dolli leen kattan dolli ak man ba jëwriñu sëñ Tuubaa ji ak yàggam ci àdduna sunu borom dolli ko ak wéram sunu borom dolli ko yaakaar naa Cheikh Mamadou Bassir bi nga ñëwee mbégte mi nga bëgg rek war naa mën a faj aajoy liggéeykat yëpp waaye ñoom liggéeykat yi itam bi nga duggee ci kër gi mbégte mi tàbbi ci ñoom mën naa defar seen lépp dégg ngeen ñii liggéey taxawuñ ñoom dañu ca liggéey ba ñun ñii teew dan ñoo woo ñi ci des nag lu leen dal rek yaa leen ko teg ndax yaa leen ameel seen xalal. ndax yaa leen ameel seen xalal. nit moom boo xamee nit nag boo yoree alalam. foo jëm rek mu topp ci yow. ginnaaw bëgg na nga jox ko ko. foo jëm rek mu topp ci yow. lu wér la njabootu sëñ Tuubaa gii. da nga leen a yoral loo xam ne. kenn ku ne. dafa jàpp ne. jàpp ne. moo ko waroon a yar ci loxoom. te di ko defar nag. ba ko jëwriñu sëñ Touba di tegee ci sa loxo nag yow. nga téyel leen ko nga ko téye. leen ko na ko war a téye. ba dara damu ci. moo tax ku dégg saw tur ku ne. te dara ci yoon wi. lu mu nekkoon. dana ko bàyyi. fexe rek ba bëtam tege ci yow. mu sant nag te gërëm. kon sëñ Falilou nee na. moog kam yu baax yii nga toogal. ñoo ngi sant nag ci seen turu kilifa. tey gërëm tey gërëm. di la ñaanal la ñaanal. yan bii nga yanu te yanul ko njabootu sëriñ Touba gépp na ko sunu borom woyofal tooy ci yow. ba na ko Serigne bi bëggee. nga defe ko nu kawe njortam. doy la dollee not sa xol bii. ci ak bëgg lépp. ba lépp lu sëñ bi bëgg rek. ba lépp lu sëñ bi bëgg rek. nam ko bëggee nam ko bëggee. na nga ko nangoo noonee. mën a ko noonee. defe ko noonee. loolu daal ñun murid yëpp ñoo ngi koy ñaan. ci kaddu sëñ Fallou gii may waxee rek. loolu nag yóbbaale na ci ñëpp. su kaddoom jibee. moom sëñ Falilou. ci kër Cheikh Rafal gi mu ne. xelum xelum ñu baax ñi mu bokkal. ñëpp. seen xel dana dal. danañ xam ne. waxaale na ñëpp. ñi fi ne. ndax ñi fi ne. mooy seen mag. mooy seen mag. di seen taawu baay. di seen taawu baay. lu waay def ci kër yi. kër gum ci mën a doon. moom la ko defal moom waaye nag ñoom ñëpp bàyyi nañ xel loolu. ba fu mu teew rek. ñu fab seen kaddu. jébbal ko ko nag. te nangul ko ko nag. kon nag yéen ñii ànd ak sëñ Basiiru. kaddu yi sëñ Falilu di wax. yaatu na de. waxaale na ko ñëpp. ndax yéen ñii tokkat bi ngeen ñëwee ci barabu Seex Rafal bi yaakaar naa fekk ngeen fi melokaan woo xam ne ba ngeen jógee ba tey seen bët mi ngi ciy soog a tege ci melokaan wi mu mel ci seen diggante seen kilifa gi kon nag Seex Basiiru kaddu yi sëñ Fall yi wax moom day lu mënta ñàkk rek waaye nun ñooy jëfkat yi dan ñoo waroon a waxal waaye jëf ba noppi nag gàddu saw làmmiñ topp jëf du ndamul kuy jëf kuy jëf ku ne dañ lay waxal fekk ngeen ñu ñuy jëf kon waxal leen nu waxal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi Cheikh Mahamadoul Bachir mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sunu bokki taalibe yi fi teew yëpp nee na bokki taalibeem yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax. na mi ngi leen di nuyu bu baax. di leen sant bu baax. di leen sant bu baax. leen gërëm. di leen gërëm. di leen jottali nuyoo yi Cheikh Mouhamadou Mountakha. di leen jottali nuyoo yi Cheikh Mouhamadou Mountakha. mi nga xam ne moo fi Serigne Touba. mi nga xam ne moo fi Serigne Touba. ñaan suñu borom. di ñaan suñu borom. di ñaan suñu borom. mu yàggal ko fi lool. mu yàggal ko fi lool. te mu ànd ak wér. ba mu bëgg a liggéeyal Serigne ci lislaam. ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci lislaam. suñu sunu borom may ko kàttan gu wér. ba mu àggale ko. ba mu àggale ko. ndax moom amul genn yitte. ndax moom Cheikh Mahmadul Muntaxa amul jenn yitte. wala genn bëgg. wala genn bëgg. loolu Serigne lu dul sëriñ Touba. loolu Serigne Touba ñoru ko. nee na lu dul Serigne Touba ñoru ko. boolewu ci dundam. boolewu ko sax ci ab dundam. jaamu yàlla. jaamu yàlla. liggéeyal Serigne Touba. Touba. di tam teg nuyoo bi nag. nee na di fab nuyoo bi di ko teg nag. ci loxol ki nga xam ne. ci loxol ki nga xam ne. moo moo fi maam Cheikh Ibrahima Fall. di Serigne Cheikh Jëmb. di Serigne Cheikh Jëmb Fall. di ko ñaanal. di ko ñaanal. mu yàgg fi lool. te mu ànd ku wér. ba li mu bëgg a liggéeyal maamam ju tedd ja. sën Serigne may ko ko. suñu borom may ko kattan ak wér. may ko kattan ak wér. ba mu àggale ko nam ko bëggee. di nuyu mboolem di nuyu mbooleem rakkam yëpp nag. di nuyu mbooleem doomam yëpp. nuyu mbooleem doomam yëpp. di nuyu mbooleem njabootam gépp di fab nuyoo boobu nag di ko teg ci loxol Cheikh Mahmadul Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñam di doomam ñu di la sant nag bu baax di la gërëm ndax ku la fekk ci jataay bi li Cheikh Mouhamadul Moustapha Fall wax léegi rek dana la fàttaliwaat juróom dana la fàttaliwaat way juróom wa di sëriñ Wud Aminte ndax moom day jàmbaar ndax moom day jàmbaar ci ci biir yoon wi. ba tax kenn mënu ko fàtte. ba tax kenn du ko mën a fàtte. waaye yàlla defal na ko waaye yàlla defal na ko nag tawfeex. na mu meloon rek. na tàggat na leen ci. tàggat leen ci. yar leen ci. yar leen ci. ba dara soppikuwu ci. nee na nag loolu pàgguteef bu leen seen maam fàggul la. muy Cheikh Ibra. kon moom maam Cheikh Ibra. kon maam Cheikh moom li mu am ci Serigne Touba. moom li mu amee ci Serigne Touba. li mu am ci Serigne Touba. li mu am ci sëriñ Touba. dana fang. dana fang. ndax euh, moom dafa dafa bëgg Serigne bi. nee na li maam Cheikh Ibrahima Fall am ci Serigne Touba dana fang. ndax moom dafa bëgg sëriñ bi. ba dara xajatu ci xolub. ba dara xajatu ci xolub Cheikh Ibrahima Fall. moom sëñ bee léppam. nee na moom sëñ bee léppam. bëggut bëggut àdduna. bëggut àdduna. ragalul ragalul sawara. ragalul sawara. bëggul àjjana. bëggul àjjana. jëmmi sëñ Tuubaa rek la bëgg. jëmmi sëñ Tuubaa daal la bëgg. loo tax sëñ Tuubaa fayee ko lim ko fayee. moo tax nag sëriñ Tuubaa fayee ko lim ko fayee. ndax fu ñu tuddee sëriñ bi rek. ndax fu ñu tuddee sëriñ bi nag. teg Seex Ibra ca wet ga. teg Seex Ibra ca wet ga. loolu nag jëfee ko ko may. nee na loolee nag jëf moo ko ko may. te képp ku bokk ci yoon wi. te képp koo xam ne bokk nga ci yoon wi. ak koo mën a doon. ak koo mën a doon nag. ameel nga ko cant. ameel maam Cheikh Ibrahima Fall ak cant. ak ngërëm. ak ngërëm. ku ci Serigne ndax nag ku jariñu ci Serigne Touba moo la wan yoon wa ngay jariñoo ci moo la wan yoon wa nga war a jariñoo ci Serigne Touba kon moom ak kon moom Cheikh Ibrahima Fall ak payam buñ ko doon natte buñ ko doon natte wala nga di ko xayma wala nga doon ko xayma doo xam fu mu tàmbalee doo mën a xam fu mu tàmbalee doo mën a xamit fa muy yem ndax ku yaakaar Serigne Touba rek jariñu ci Serigne Touba rek jariñu ci Serigne Touba rek moo la wan yoon wa nga jariñoo tamuy lu wérit nag looloo waral looloo waral liggéey bii liggéey bii bu doon ndigalul sëriñ bi itam. bu du doon ndigalul sëriñ bi itam. kuy kuy taalibe sëriñ Touba. kuy wala nga yaakaar sëriñ Touba. wala nga yaakaar sëriñ Touba. sam xel wërta dal. sam xel wërta dal. nga romb liggéey bi te doo fi jaar. nga romb liggéeyub maam Cheikh Rahima bii te doo fi jaar. jëf ci. jëf ci it nag. jëf ci sa alal. jëf ci sa alal. ndax yoon wi moom. ndax yoon wi moom. mooy sëñ Moustapha da mooy sëñ Moustapha da koy faral di wax. Serigne Touba li mu am mayewu ko. Serigne Touba li mu am mayewu ko. saraxewu ko da koy jaay. saraxewu ko da koy jaay. lu ci waay am danga koy jënd. lu ci waay am da koy jënd. te firnde ji mooy ñoom ñii. te firnde ji nag moo nekk nii. yéen nag yàlla dafa def. yéen nag yéen waa kër maam Cheikh Rahma Fall yàlla dafa def. ku am tawfeex. ku am tawfeex. di setantal. di setantal. di xool seen mbir. di xool seen mbir. dana yéem Serigne Touba ci yéen. yéem Serigne Touba ci yéen. keroog ba ñuy teg xeer wa. keroog ba ñuy teg xeer wi. ku xool jataay bi ni mu bindoo. ku xool jataay bi ni mu bindoo. dana la jox lu bare bëri. dana la jox lu bëree bëree bëri. pësteef pësteef bi ne ci ñoom. pësteef bi nekk ci yéen. ak dogu gi. ak dogu gi. da xool seen jataay bi da ngay xool seen jataay bii. am na ñoo xam ne quatre heures de matin lañ fiy ñëw. am na ñoo xam ne quatre heures de matin lañ fiy ñëw. ku fi huit heures fekkul. ku fi huit heures boo dikkee danga fay. boo dikkee danga fay. lool nag. loolu nag. Eh, Sëriñ Touba rek la ñuy seeral. Sëriñ Touba rek la ñuy seeral. ak ak maam Cheikh. ak maam Cheikh Rahma Fall. kon loolu pësteef. kon boobu bu dëggu. bu dëggu. daanaka amatut. daanaka nag mën naa wax ne amatut kon nag yéen. seen maam fàggul na leen. seen maam fàggul na leen. ndax. mënoon ngeen a tàbbi kat. ndax kat mënoon ngeen a tàbbi. ca la mu jëfaloon sëñ Touba. ca la mu jëfaloon sëñ Touba. ba Serigne Touba fay ko. ba Serigne Touba fay ko. muy loo xam ne ba addunay tukki. muy loo xam ne ba addunay tukki. ba àllaaxira. ba àllaaxira. dara mënatu ko dindi. dara mënatu koo dindi. waaye nag moo leen faggul lii. waaye nag moo leen faggul lii. ngeen ngeen di wane yoon. ngeen di wane aw yoon. ci waxtu wu ne. ci waxtu wu ne loolu laa gën a gis ci yéen. nee na lim gën a gis ci yéen. mooy saa yu jamono lëndëmee ngeen wane aw yoon muy bi. muy pasteef bi. ak dogu gi. ak dogu ak jël seen lépp nag. ak jël seen lépp nag. ndax alal dafa taq ci xolu borom. ndax alal dafa taq ci xolu borom. moo tax sunu borom di wax ci alxuraan ne. moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne. wala yasalukum amwaalakum. wala yasalukum amwaalakum. in yasalkumuha. in yasalkumuha. fa yuxfikum tafxalu. fa yuxfikum tafxalu. wa yuxriju adxaanakum. wa yuxriju alxaanakum. kon loolu. kon loolu. moo moo moo tax Serigne Touba da wax ne. moo tax Serigne Touba da daa wax ne. alali dongo yi. yi. na ngeen di xool bu baax fa ngeen koy dugal. dee leen xool bu baax fa ngeen koy dugal. ndax nit fo fu alalam dem. ndax kat nit fu alalam dem. xolam topp ko. xolam da daal di topp. yéen nag. yéen nag li tax. li tax lu ngeen woote ci sëriñ bi. lu ngeen woote di sëriñ bi. nit ñi nangoo miraasu. nang nit ñi nangoo miraas seen bopp. mooy seen lépp li ngeen ko delloo mooy lépp loo seen lépp li ngeen am da ngeen ko delloo ci sëriñ bi. desalu leen dara leen ci seen bopp dara ndax ku gis addiye yi ngeen di joxe ndax ku gis addiye yi ngeen di joxe ak jëf yi ngeen di jëf ak jëf yi ngeen di jëf ak gis fi ngeen di dëkk ak gis fi ngeen di ak melokaan yi ngeen di ak melokaan wi ngeen di mel loolu pàgguteef loolu nag moom pàgguteefu Sëriñ Tuubaa waaye xel mayewu ko waaye xel mayewu ko ndimbalul yàlla ndimbalul yàlla rek la ak pàgguteef kon de man de kon de nee na moom day wóor na ma ne wóor na ko ne kuy sikki sàkk ci mbirum Seex Ibra kuy sikki sàkk ci mbirum Seex Ibra sag ngëm Serigne Touba ngëm Serigne Touba ci boppam moo des. ndax dafa leer ba ëpp. ndax dafa leer ba ëpp. te li dafa leer. jég te li ci Serigne Touba wane dafa nee na ca li ci Serigne tubaa wane dafa gën a leer. kon nag ñu ngi ñaan bu baax a baax. kon nag nee na mi ngi ñaan bu baax. lu fu waay indaale ci aajo rek. lépp lu waay indaale ci barab bii ci aajo. fas ko ci. fas ko ci. yàlla na Sëriñ Tuubaa dimbali. yàlla la ci Sëriñ Tuubaa daal di fekk dimbaleel la ci boppam. te xam ne sëriñ bi saa su wootee rek. te xam ne sëriñ bi saa yu wootee. wala mu joxe ndigal rek. wala mu joxe ndigal rek. moo koy moo boole ak la muy àndal. sëriñ bi mooy boole ndigal la ak la muy àndal mu di ko faj. sëriñ Modou Moussa Abdou Khadir. sëriñ Mouhamadou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir. nee na bi liggéey jumaa ji àggee. nee na bi liggéeyub jumaa ji àggee. liggéeyub yokk bi ñu koy tax bi ñu koy liggéey. liggéeyub yokk bii bañ koy liggéey. ci jamono Cheikh Abdoul Ahad. ci jamono Cheikh Abdoul Ahad. bi muy indi yóbbu addiyee Cheikh Abdoul bi muy yóbbu addiyee Cheikh Abdoul Khadir. nee naa wax Cheikh Cheikh Abdoul Ahad ne ko. nee na moom Serigne Modou dafa wax Cheikh Abdoul Ahad ne ko. damaa bëgg nga fàggul ci taalibe yi. damaa bëgg nga fàggul ci taalibe yi. addiyee yomb leen. addiya yombu leen. sëriñ Abdoulahat ne ko loolu laa ci jublu. sëriñ Abdoulahat ne ko loolu laa ci jublu. ne ko xam nga li ñuy wax toppum siti. ne ko ndax xam nga li ñuy wax toppum siti. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. mu ne ko jàngoro jooju mooy xam ne ku dal. ba ci say da lay topp. ba ci say sët da lay topp. mu ne ko damaa bëgg dërëm bu ci waay def. mu ko nag yokk bi damaa bëgg dërëm bu ci waay def. ba ci say sët. ba ci say sët. addiya yomb la addiya yomb la. kon nag dégg ngeen li ci Serigne Saliou daan wax. kon dégg ngeen la ca Serigne Saliou daan wax. danaa wax ne Serigne Touba nee na. da daan wax moom Serigne Saliou naan Serigne Touba nee bokk na ci njëriñ addiya njëriñul addiya. bokk na ci njëriñul addiya. lu bari la nag. lu bari la nag. waaye dana fekk fu dara nekkut. waaye moom addiya mu def mu def fa dara. dana fekk fu dara dana fekk fu dara ne. mu baril ko. te bëri mu baril ko. dana fekk fu lu bari fekk nag fu lu bari ne. mu barkeel ko ko. kon nag yéen loolu moo leen topp. kon nag nee na yoon yéen moom loolu rek moo leen topp. kon nag ñun itam yàlla nañ tàbbi ci biir rek. nee na kon ngeen ñaanal ko ñun it yàlla nañ tàbbi ci loolu. yàlla nañ tàbbi ci biir ba faaw. yàlla tàbbi ci biir ba faaw. te bañ koo génn te bañ koo génn. bañ a bëgg lenn lu dul Serigne Touba. bañ a bëgg lenn lu dul Serigne Touba. bañ a ci suñ kanam lu dul Serigne Touba. bañ a teg dara ci suñ kanam lu dul Serigne Touba. di sant bu baax nag. di sant nag bu baax. di jot li kàddu yi cant yi Serigne jot li kàddu yi bi bi. ndax biig ba ma ko nuyoo ca Poroxaan. ndax biig ba ma ko nuyoo ca Poroxaan. la ma laaj. la ma laaj. ne ma liggéey ba dégg naa sori na. na ma liggéey ba dégg naa sori na. fu mu toll. fu mu toll. fekk na jaaraguma fi. fekk na jaaraguma fi. ndax néewuma ndax nekkuma fi woon. mu ne ma nag lu mu xat-xat. mu ne ma nag lu mu xat-xat. booy àgg rek. booy àgg rek. na nga fa daan dem na dem. te bul amati ñaari ay bis te demoo fa. amati ñaari ay bis te demoo fa. ba liggéey ba àgg. ba liggéey ba àgg. moo tax mayit ma ne. moo tax mayit ma ne. bala maa àgg sama kon daal dana ma bala maa àgg sama kër man. naa fi jaar siyaare leen. naa fi njëkk jaar siyaare leen. ngir ndigal leen. ngir ndigal li. sëriñ bi daal sant bi daal nee na sant na leen de. li ma fi gis itam nag. nee na lii mu fi gisit nag kawe na sama njort. kawe na njortam. la la Cheikh Ibrahima liggéeyaloon Serigne bi ca Njaareem. la Cheikh Ibrahima Fall liggéeyaloon Serigne Touba ca Njaareem. ba tubaab yi di ko yéem. ba tubaab yi di ko yéem. ci tabax bu gaaw. ngir tabax bu gaaw. Euh, te te te te mel nu kenn mës a gis. te mel noo xam ne ñoom tubaab yi mënuñu ko am. ba boo demee ci archives yi dañoo bind ne. ba boo demee ci archives yi ñoom dañoo bind ne. liggéey bi dafa gaaw. liggéey Cheikh Rafal boobu daa gaaw. ba mel ne xar baax la. ba mel ne xar baax la. kon lii itam ku fi ñëw. Mm. kon lii itam ku fi ñëw. xel mënu ko woon a xalaat. nee na xel mënu ko woon a xalaat moom. li may am yaqin yaqin ci yéen. nee na li may am am yaqin ci yéen. Mm. xalaatuma woon ne genn wàll gi dana fa àgg. woon ne nag ci ñaar fukki fan ak nangam genn wàll gi da ci àgg. kon yéen seen mbir ku koy sikki sàkka kon nag yéen seen mbir ku koy sikki sàkka. da koo bëggut gis. da koo bëggut a gis rek. waaye leer na nañ. waaye leer na nañ. ndax lii ngeen nekk. ndax lii ngeen nekk. moo gën a jafe liñ nekk ñun. nee na lii maam daay ma Fall nekk ngeen ne ci moo gën a jafe liñ nekk ñoom. waaw moo ko gën a jafe fuuf. nee na moo ko gën a jafe fuuf. nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla tàbbal ñu ci seen biir. barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulah.